sama gars yi naa leen dafa am bataaxal bu bees maanaam communiqué boo xam ne ci procureur de la république la jugee procureur nee na Moustapha Ba après autopsie bi décès Moustapha Ba bi c'est pas naturel lu naturel lu nag nit moo ko provoqué. ngeen dégluwaat ma bu baax procureur nee na Moustapha Ba deewam bi naturelul lu naturelul nag nit moo ko provoqué Moustapha Ba nag pour rappel déggoon déggoon ngeen fii li Ousmane Sonko waxoon il y a mooy jamono bi muy génnee. ne chiffres yi dañ ko falsifié ne woon na Moustapha Ba ci boppam confirmé woon na ko pourquoi après la quelques quelques semaine quelques mois après Moustapha Ba gaañu ñu ne DM bi naturel ah sama gars yi doy na waar trop nag doy na waar trop kan moo am intérêt Moustapha Ba dee de toute façon enquête ubbi na gaa yaa ngi enquête ñi nga xam ne ñoo làqatu derrière cette mort ils vont rendre compte parce que lu naturel moom doomi aadama moo ko provoqué sama gars yi moo amoon ci mbiri Moustapha Ba communiqué baa ngi nii officiel vraiment sama gars yi réew trop sax doy trop je vous remercie. mooy daal di def benn brèche pour ngeen mën a jëli seen xel ndax amaanul lépp lañ mën a tàbbal ci penc à l'époque soviétique ñoom seen service secret mu ngi tuddoon KGB ginnaaw bu URSS daanoo dañ koo daal di tabaxaat indi muy FSB loolu nag daanaka dëkk yëpp am nañ ko am na ay góor am na ay jigéen ñoom nag seen yitte li ci gën a bëri mooy espion déglu ñi nga xamee c'est des personnalités waaye daal ñoom daanaka. li ci ëpp ñoom ñooy xamal gouvernement bi lan moo war a ñëw dal ci dëkk bi ñoom it seen mission da cee bokk dem ci yeneen dëkk di leen espionner di leen déglu loolu daanaka dëkk yëpp am na ko bu dee Israël seen bos mu ngi tudd Mossad ñoom nag seen foor effacer nit sans trace da bokk ñoom loolu moom seen fort la mun nañoo effacer nit sans trace waaye xam nga li tubaab naan un crime n'est jamais parfait loolu da cee laxasu foofu mbiru suñu borom am na bakkan yoo xam ne yàlla daa am lu ciy def. voilà du am na ñoo xam ne boo leen sàkkalee pexe sa àdduna yàqu na te foo nga foo yàlla weer la yëg ngeen ne alaaji Moustapha Ba sama waroom du ko moom waaye communiqué bi nga xam ne dañ koo tàbbal léegi daanaka 30 minutes lay def jàpp leen ne daal deewug Moustapha Ba gi am na leneen lu ci laxasu waaye du dee naturel loolu daal la communique bi tënk ma daat leen koy faram-fàccee ci kàllaamay kocc wax ju yegg nag dofa ko moom jërë ngeen jëf